amee internet Sénégal set dal leen ak jàmm tey nag ñu amaat mbégte ak contentement ah, dem ba génn Dakar ñu ngi fii ci Tëngéej seeti Mame Ngor Diazaka xam naa boo leen gisee kenn du leen ko présenté mu nekk koo xam ne ku actif la ci politique euh, ñu nar a waxtaanee nag tolluwaayu réew mi Mame Ngor ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay waa Sénégal set di nuyu na képp koo xam ne jeune nga boo xam ni am nga ambition ambition mooy nga teg dara jël ay sénégalais ñi ci liggéey. parce que dafa am ay jeunes yoo xam ni sa des entrepreneurs ku mel ni Bougane Gueye Dany ku mel ni yu Ndour xam nga ku mel ni maam góor Diazaka ñeneen ak ñeneen nit bu fekkee ni yàlla dafa la dimbali nga mën ubbi ay société doon sénégalais jël ay nit même bu doon ñaari nit nga leen di liggéeyloo de leen fay yaa ngi contribuer ci développement dëkk bi par contre koo xam ne sa làmmañ bu rëy rek nga yor di war di wax doo dimbali kenn doo jàppale kenn fenn rek mooy sa loolu moom baaxul inondation yi sax la ñuy dugg ndax indi na coow lu bëri lu ci xew gis nañ opposant yi bi ñi ñenn ci opposan yi eh, bi eh, kër yi tëmbee lépp lab di fay gars yi dem nañ seeti leen ba mu jur benn clash bu fi am entre deux euh, politiques ban gis nga ci am entre Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di buggaan Gueye dani waaw xam nga tey boo waxee buggaan Gueye wax Ousmane Sonko du match man pour man Ousmane Sonko amalul njariñ sénégalais yi. lan moo tax nga wax loolu. il profite du malheur des sénégalais pour se faire un il faut que sénégalais comprendre Ousmane Sonko Ousmane Sonko ci ci malheuru sénégalais lay profité pour am tour Ousmane Sonko kenn mësta gis benn sénégalais bu mu dimbali benn benn sénégalais bu Ousmane Sonko dimbali man mosuma ko gis. mais quand bu ñu nekkee ci malheur mi ngi dem di leen seeti. Casamance lay tuddoo kenn mësta gis benn jeune handicapé wala kenn ku fa feebar wala koo xam ne il est dans le besoin ñu ne Ousmane Sonko moo ko jàppale mosuma ko gis man. xëy na tamit dafa am lu leen jàppale. xam mu ngi leen di nemmiku. man Serafal laa xam nga Serap Fall lan la wax daf ni ba keroog yàlla di fay wax bàyyi jëf jëf moo am solo Ousmane Sonko day wax rek du jëf jëf moo am solo man Baye Fall jëf laa xam nit da ngay jëf jëf du tuuti chaque jour ñu wax ko tey bu fekkee ni Ousmane Sonko daf ni moom leader politique la Sénégal la nekk am na xaalis bu mu campagne am na xaalis bu mu def ci otoom am na xaalis bu mu fayee courant ak ndox même bu doon benn cent mille francs Ousmane Sonko waroon na mën a jël un million mu def ko ay 100000 100000 def ko enveloppe fu mu dem ci mbënd mi taxaw mu ne 100000 francs yi maa ko participé xam nga ni da ngay sa xaw a muus tuuti mais Ousmane Sonko du maye du saraxee du dimbali kenn jàppalewul benn sénégalais amul njëriñ du nit ko am njëriñ xam nga lan la ku bëgg taal Sénégal la yaakaar ni xam nga man tey ji bu waxee dañu dama ko contre parce que man nandite laa Ousmane Sonko dama ko xam xam bi mooy. dafa moom ñun mënuñu dëkk dakaar juddoo fii màgg fii mu jógee fële ñëw fii yaakaar ni moo ñu gën a yeewu il profite encore une fois ci malheuru sénégalais yi pour sa fair un nom tey jii yàlla dogal na mën na am na fi yow mënoo dara dem nga foofu di xool noo jaxasee askan bi ak président askan bi comprendre ni lii catastrophe naturel la sa pexe nax saay Bougane Gueye nekk sa morom nekk un opposant farouche tey image wane nañ ko parce que maa ngi liir ci benn euh, maa ngi gis benn vidéo bu circulé ñuy def ci les mensonges de Ousmane Sonko ñuy wane fi muy waxee nii lii wax le contraire Bougane créé nañ fi télém tëj ko ndax Ousmane Sonko Bougane mu tey jii boo xoolee tele bi mu ëppoon lu muy génn mooy mooy seen TV su ma doon buggaan detul génn sama télé. yéen journaliste mais mais mais loolu du yoon. yéen journaliste yi yéen seen bopp yéen Ousmane Sonko respecté wu leen. Ousmane Sonko gisaguma ko mu jox benn journaliste boo xam ni. daf la jox exclusivité comme nii nga ñëwee sept semaines yi exclusivité nga interview ko du ko def déclaration rek lay def parce que xam na ne bu toogee ak yow am nga xam-xam mën nga génne ay faayam daa yeewu dama je défi laa ko lancé nay jël journaliste yi critique yi muy def ñoom ay émission benn la fi defagum Sen TV li ko defee ba mu demee ñu journaliste yi wër ko posé ay question société bi mu créé dañ ko ko laaj mu fàtte tur mu koy fàtte fàttelu naa ne hi damaa jiw damaa sonn dafa yaakaar ni moo gën a yeewu man mun naa fàtte ni man maa moom référence actu c'est logique mënoo créer société di ko fàtte ba pare bëgg ñu dénk la suñu réew xanaa ñun dañoo dof ñun sénégalais yi Ousmane Sonko 2STV lañ ko invité Sénégal yëpp di ko seetaan société bu mu créé journaliste yi wër ko loolu moo lay wan ay faayam ni amul xam-xam dañ ko posé ñaari question mu patiné ci affaire u 94 milliards yi sa société mu ne eh, dama ko fàtte damaa loo sonn sonn sonn société boo créé mënoo ko mënoo mënoo ko xam mais tamit mais ak fàtte ñoo ànd peut-être mën na ko fàtte yow journaliste nga wax journaliste wax dama ni li may wax sénégalais yi laa koy adressé Ousmane Sonko daa yaakaar ne moo gën a yeewu nit ñi yeewul. mais borom xam-xam la borom borom xam-xam la. xamul dara lu mu xam daa xam tus xamul dara la la xam. est ce nekkul ni contre attaque yi mu leen def ak yenn yi muy wone ci seen régime moom ngeen nekk di ko xeexee nii. man dama la bëgg expliquer man maam góor su ma gisee si régime bi loo xam ne doxul dama koy wax man Macky Sall joxuma poste fayu ma salaire dama gis mu nekk yaru Macky taxaw nañ fii ni dëmm la. jiiñ ko lu nekk saaga ko ay ndey en tant que président de la république masta fayu masta wax lu ñaaw dafa yaru c'est un homme d'état Ousmane Tanor Dieng opposé na Ablaye Wade pendant douze ans xam affaire maître Babacar Seye xam li xew ci réew mi yëpp kenn mësu ko gis mu débale vrai ou faux waaw léegi ñii c'est pas des hommes d'état taxaw di xaste Bougane gay Dany dafa jël ay sénégalais di leen fay salaire maaseeg moom jamono mais nan aigri ak iñaan weesuwul nga taxaw naan ay opposant Macky Sall ñoo xam ne dañoo dem lijjanti seen i milliards am seeni i milliards ay opposant de circonstance lañ moo tax Bougane tontu bi mu ko tontu moo frère je te félicite Bougane gëree nga li maam Serafal waxoon la ko tontu ba keroog yàlla di fay wax bàyyi jëf bu fekkee ni da ngaa dem foo war a jëfe te jëfoo wax rek nga mën def mu la ko bëggoon tontu maa ngi dégg sànq ci sa biir wax nga ni Ousmane Sonko wartuñ koo invité ci euh, plateau bu seen TV loolu yow fan nga ko teg. fi ma ko teg moom mooy tey fayul naar bi xoromam man dama fekkee ñu teg ay daan seen TV ndax Ousmane Sonko parce que déclaration yëpp fa la ko doon defee waaye yow kooku di la defal teraanga nga koy wéq jamono bii nu nekk nii jamono bii nu toll nii nii nii nii. nekkatul jamono maam yi njëkk ay incha allah ay yàlla baax na ay xaar yàlla yooyu xewi na boobu ma mbëkkee dama lay mbëkk bu ma doon man waxuma sax waxuma sax Sen TV mais journalistes yi nekk Sénégal yëpp yen yéen a may bës Ousmane Sonko parce que respecté wu lañ Ousmane Sonko même sax conférence de presse du ko def déclaration de presse ak. non mais peut-être loolu stratégie am la loolu stratégie am la. stratégie nit ki booy est-ce que xam nga ni presse. presse mooy deuxième pouvoir ma troisième pouvoiru dëkk presse dañ leen war a respecter dañ leen war a jox cër man dama investir ci presse li fi nekk yëpp bari na je suis un artiste mais dama investir ci presse parce que xam naa ne presse ay nit yu respect yu yu yu respectable ñoo ci nekk. fekkee ni def ni c'est un leader politique chaque jour li ngeen di tuddee conférence de presse Ousmane Sonko laa bëgg ngeen bàyyi ko il fait des déclarations de presse. conférence de presse mooy nga toog ñëpp di la poser ay question ngay tontu ñu wan ni yow borom xam-xam nga mais moom day ciblé sax ñu koy poser ay question donc amul xam-xam c'est que il faut ñu bàyyi et puis c'est euh, bu ñu jël débat bi conseil parce que c'est un cadavre Ousmane Sonko dafa xewi de c'est affaire politique affaire mbënd mi da ko bëggoon def buzz parce que man fan yee passé posé nañu question man leen man du ma tirer sur un cadavre parce que loo war a wax depuis loo war a wax Ousmane Sonko li mu waroon wax ci dix ans daf ko wax ci trois mois ku ñii mu ne sàcc lañ ku ku ne mu jiiñ la sàcc ku nekk mu jiiñ la lii mais tey bu fekkee ni moom li ñuy wax yëpp dëgg la yow nga ni fonctionnaire nga yaa ngi nekk impôt sa salaire mënoo ci am ay yenn kër yi mënoo ci am yenn affaires yi bu la banque lebalul wala yenn yenn affaires yi nañ wax ni dëgg mu ngi politique mu ngi yor ay oto mu ngi kii. fan la est ce que est liggéey may ko ko tamit. man liggéey lan lay liggéey. li muy lim doon liggéey. impôt la nekkoon. dama ni xoolal am na aussi propre entreprise am. xoolal Ah. bu ma fonto ah. non mais non bu nekkee ci logique boobu rek Ousmane Sonko c'est-à-dire mënuñu ko ngañ ci lim am di jënd. waaye damay neexal sa émission. du question neexal du question neexal foofu sax bëgg naa ci neexal googu nga wax noonu sànq sànq da nga wax que ni Ousmane Sonko du jox exclusivité ki nga xam ni moo di moo di presse sénégalaise mais président de la République Sénégal dañ koy soxla mu dem ba France di fa def ay interview te Sénégal presse sénégalaise. xam nga xam nga boo ko tegee foofu je pense que Ousmane Sonko tamit. c'est ñaari affaire président ak chef de quartier bokkuñu Ousmane Sonko su sax chef de quartier du ñu benn. dama non dama dama ni dama bëgg nga déglu mu baax un président boy président ñun suñuy destiné dëkk moom moom lañ ko dénk dama la wax président bokkul ak ñii man du question Macky Sall lu mu nekk président ak yooyu ma faral ko wala yooyu man Macky Sall laa faral mais su ma gisee lu doxul dama koy wax. kon war nga ko wax muy wax ak presse sénégalaise bi dem di leen jël. dama ni man. ci sama bopp man maam góor toog naa gis waa TFM ñu defal Macky Sall interview Dieynaba Seydou Ba def ko noon dama ne waa d'accord dama ne même bu dee campagne xam nga booy man dama leex li ma gis xam nga li sàcc bii bañ mooy maa la gis wala maa ko fekkee man maa ko gis kon yow sa wax boobu loolu bàyyil ba ma gis ko ci ki ma doon wax léegi voilà gis nañ ko mu dem ci beneen presse boo xam ne presse internationale la. yaa ngi dégg te ñun ñi ngi toog fii presse bi nekk na fii. Eh, mais RTS donc nekku fii quand yeneen télé télé yaa fii kon donc moo ko Ousmane Sonko presse position moom mën nañu wax ne ñoom dama di wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko du euh, Macky Sall du moromu ñooñu booy wax da ngay wax Ousmane Sonko euh, mooy kan booy. non daa c'est un sénégalais dama ni moom muus yi di daw ci mbedd mi muus yi. moom muus yi ñooy moromam bu ñuy jël ay président Macky Sall nga koy tëkkaleeg ay ñii dama bëgg nga déglu ma la lay wax bokkuñu ok bokkuñu c'est pas les mêmes c'est yéen sénégalais man dama jaaxle quoi. c'est leen nag tiital na leen saa yu Ousmane Sonko génnee wax kenn ci yéen génn wax. boy yow ku la xas doo ko xas sénégalais ñoo bëgg fenkat dama lay wax sénégalais fenkat la ñu bëgg gis na Sénégal tey jii boo gisee ku ci ëpp bayre boo gisee benn groupe ñuy ànd ki dàq fen moo ci ëpp bare bayre fen rek lañuy ñuy def dama la bëgg expliquer booy fii nit ñi dañu dépassé moom yu moom booy la xale la man sama rakk-rakkaat sax moo ko mag booy la xam nga boo nekkee booy nii boo affaire xam nga booy yow sa doom tey jii boo tey sa kër boo fa nekkee sa doom bu ndaw day toj ay kaas di sànni ay kii de falaxe ku ñëw ci kër gi xale bu ndaw bi lay wax te pourtant sa taw mën a nekk mag mag moo xam ni magub jëm la lool la moom bébé la day palax palax yi nii rek du dara sef de quartier mënu ko nekk maa la ko wax fii ci Sénégal fii défi laa lancé chef de quartier du ko ne tey ji ñi ko wooteel ci élection yi passé ñu naan troisième la jël ndadde la jël ndax Madické Niang la raw ak Cheikh Issa Xawma Sall moo ko jiitu ci politique ah, Cheikh Issa Sall moo ko jiitu ci politique mu euh, Idrissa Seck cinq pour cent la ko rawee kon jàmbaar la dama bëgg nga dégg ma bu baax ma la Ousmane Sonko toog na quatre ans nekk ci presse bi ku ñu tudd mu ne sàcc nga di tax di wax lu ne quatre ans la def campagne Madické Niang il est venu à un mois des élections la ñëw pour nekk candidat dama lay wax de te malgré tout ça am na can am na am na parrainage. non non loolu bu la neexee nga dem wax ko ko moom. loolu moom mën nga ko jël yow en charge mais man li may wax mooy à un mois des élections la ñëw kooku man mii sax su ma defoon mën na mën naa am mu bañ ma raw ah xam nga parce que un mois des élections la ñëw. beneen parti bi gars yi ñu ngi wax nii xam nga daayira la ñii naan du daayira ñii naan lii la ñii naan lii am na ñoo xam ni du ñu woteel lu mel noonu est-ce que comprendre ñaar ñi mu raw man pour man boo leen rawee candidat yi boo xoolee président bi passé candidat candidature yi Macky Sall la Idriss Seck ak moom est-ce la ndàdde la jël moo jël ndàdde parce que ñi mu raw non dama lay moo jël ndàdde ba pare boo xoolee ñi mere woon Macky Sall ndax ndax euh, Karim Wade ak ñi ko mere ak Khalifa Sall ñoo ko woteel tey bu boo ko bokkoon ak Karim Wade mooy Ousmane Sonko doo am dara dama la bëgg a wax te billaahi laa lay wax nii bu ñu demoon élection tey ji ngay xam li ma la wax nit ñi génn nañ ci moom ba pare moom dafay fàtte ni pour mu nekk député plus fort reste la jàllee mooy député yëpp dañoo jàll ba pare ñu dem ci mbalit mi xool desitu carte ya fa des moom lañ dajal pour moom mu nekk député loolu mooy plus fort lan la jàll alors foofu la ñuy jógee rek daal di non nekkul koo xam ni sénégalais yi ñoo ko tànn ñëw ni ko kaay nekk député déedéet dama bëgg mu leer li may wax nii plus fort reste la jàlle pour nekk député il faut que mu leer sénégalais yëpp xam ni Ousmane ko nekkul député boo xam ni sénégalais yee ko fal ca mbalit ma lañ dem xool des ci carte ya fa des yëpp ñu dajale ko ñëw mu jàll il faut ni foofu la